yàgg nañ ko wax dañuy préparer seen defet chaque fois bu élection amee buñ bëggee xam ne bu ñu xamee ne dañ leen di gagné dañuy commencé yuuxu naan ñii leen ngi sàcc ñii leen ngi def naa lekk li la ciy jox exemple mooy 2019 biñ bi Macky Sall nekkee jëlee jëlee ndam li au premier tour ñoom ñëpp yuuxu daal di ne wéy dañoo sàcc extra ñu leen ku sàcc kañ di nga indi ay firnde di leen firnde yu mel ne dañ sax demoon nañ sax dafa am ay bureau de vote fictif ak yooyu yàlla def ren dañu def audit du fichier ñaari yoon que peut-être 2018 ñu defaat ko ren bi ñu ko defee bredom vote fictif yi doon wax naan dafa am ay inscription multiple yooyu yëpp ay experts yoo xam ne ay jàmbur la yu jóge à l'extérieur ñëw wane nañ ne loolu dara amu ci te ñoom seen représentant ñu nga foon man maa nga foon waa xam nga euh, euh, Khalifa Sall dafay bu waxee loolu dafay fàttali dafa nekkoon ci nguur di gagner ay victoire di am ay victoire je crois que bi bi Abdou Diouf nek au pouvoir sax fichier bi nga xamné ci lañ falé Abdou Diouf fichier bi fi nek di moko gëna bax man ma la koy wax parce que man on est là nek vous voulez dire que c'est un fichier fiable. c'est un fichier extrêmement fiable té ñom xamnañ ko parce que biñ koy tiabar sen représentant ñu nga foon opposition mi yëpp ñu ngi tok ñun ñu ngi tok société civile la ngi tok ay experts yi ngi tok avons un fichier bi avons un fichier bi c'est fiable dem Le Sénégal moom xam la wax mais sàcc élection jeex fi kenn mënatul Nous élection. un fichier bi. avons un fichier ci ngay fichier c'est pas possible gis nga waxu fichier dañ ko dépassé. a dépasser nañ a wax fichier ko il faut ma delluwaat ci. wax sama kaw peut électeurs yi sa parti ngi toog senaa ngi toog ñu bind bu ñu retiré carte yi sa parti ngi toog senaa ngi toog ñu joxe carte yi bu ngeen di wote boo duggee ci bureau bi boo jël sa carte bureau de baa ngi toog senaa ngi toog représentant candidat yëpp a ngi toog. bu ñu paree amul amul ah amul. amul tey amul ëllëg man maa ko wax ca kenn bu ko weddee nañ ñëw toog ñu démontré ko boo duggee ci bureau vote bi bu ñu wotee ba pare ay jàmbur yi ñëw di compter suñuy compter Sénat ngi toog représentant parti yaa ngi toog bu ñu paree ñu def benn procès verbal ku am loo ciy wax nga def ci ay observation ñu sele carte yi yóbbu commission départementale ñu compter carte yi mais foofu fooy sàccee booy watee da ñëw ci liste bi xool sa tur a ngi nii ñu ne diw Daouda Ba nee la te extra nga wote signé ne wote nga mais xam na ñu luñ préparé gagné préparé gagné mooy formé suñ militants yi convaincre leen joxe suñ programme ña nga xam ne ñoo nekkoon maire bokk ñu joxe seen bilan ñu xool ci ñoom woteel leen loolu mooy wotee lépp la leneen luñ ci wax ne am na ay complot am na ay mais yéen nga ay ay journaliste leen ku ci waxati loolu ne ko indi ay firnde ne ko indi ay firnde mais xam nga loolu dem ca Euh, làmb di di bàkkook di di di dëkku jóge ca bàkko euh, làmb ja di di di di bàkko moo ko gën loolu on est habitué à ça c'est des gesticulations ak ño xamné xamnañ né peut-être dañuy perdre élection yi pour luñ tek ci loxo nit ñi ëllëg mais loolu Sénégalais yépp xamnañ né élection kan mënu ko sacc jàpp nga né vous êtes confiant que di ngeen gagné élection bii nii fii si Dakar. man day ci nga xamné day am confiance ne nañ gagné Dakar ci la bokk. ci yi nga xam ne presque y' a six cent collectivités territoriales boo moytuwul téeméeri junne ñoo koy gagné xam naa nag ne dina am ay commune yoo xam ne effectivement opposition bi nañ ko gagné parce que nit ñi ñëpp bokkuñ gis-gis et tout ça mais li ci ëpp daal xam naa ne benn bokk